كلمتو كل فارق ذنبه وشركه وقبل سنة ربي لذبت وتركه كلامي ولياتي وفي لا توجه إلى من كفاني سوء بل ما تنجي ودرو وشكا كفاني في سلمان جملة العدا وليقاد عليهم وسر النسكا مارجي والله العظيم مستا يقل يقل دار سيرج سالم با سيرج سالم گرم ba sëriñ Salim wuy ji àjjana kon sëriñ bi yow la ñëpp maase ànd teew di la déglu Cheikh Sohaibou Mbacké Cissé kat sëriñ Sohaibou Cissé ñun sunub sag sëriñ Salim wóolu wóolu woon sëriñ bi su mosaan di wax day geesu nii geesuwaat nii su la gisut danaan hii sooy mu si sooy mu dafay nekk kutam dama bëggoon ñu jàll fii nga xamante ni si nekk ko ndax ne wax ak nit ñi dama bëggoon mu fekkee ko maa fekkee lii may wax maa ko dund kon barab bii Mouhamed Sylla mii woote cadd gi barke Serigne Saliou Mbacké boo ne ko woon cadd gi du am du am ndax ñun xam nañ fi ñu féetee sëñ bi Mbacké ñoo ngi lay siyaare man su ma la gisee sama xel day dem si ndab yaa nga naan indil sëñ Saliou yéen naa ko ba tay tegal ko sëñ bi ubbil ko ko mu xool ko. diggante sëñ Mor Mbaye Cissé moomu ngay wax diggante fekke wu ma samay maama ko fekke maanaam sëñ Ndiassé Cissé moo jur sëñ Mor Mbaye Cissé sëñ tuubaa daa toog ba ci yàgg mu ne alxuraan nag may xeeñ de seet leen ku nekk ci bunt bi ñu ñu ñu ko ñu ne ko ku ñuy wax Ndiassé Cissé de moo nekk ci buntu bi mu nu ubbil leen ko mu ñëw. mu ñëw mu ne ko koy sab taaw mu ne ko moor Mbay Siise la tudd mu ne demal andil ma ko déglul wax de de bi mu andee sëñ Mor Mbay Siise mu ne ko yow man ngaa ñibbi li ma bëgg ci alxuraan lépp kii dana ma ko defal kooku moo jur kii ci ay caatam la sëñ Tuubaa xaritu alxuraan la waaye maamam maamam ak i waajuram xaritu alxuraan la salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Falilou Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Amin ñi ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay ndax yow yaay kilifa getaay bi di nuyu tamit sa rakk yi nga xamante ni ñoom nga àndal ñu ay jëmm yu tedd di nuyu tamit sëriñ Abo Mbacke mi nga xamante ne nii mooy doomu suñu sëriñ sëriñ saali Saliou Mbacke nekkal fi waakan sëriñ saali Saliou Mbacke yépp ci jataay bi moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam sëriñ naa Mbacke ñu ngi lay nuyu bu baax te di la siyaar di la sant bu baax ci waxtaan wu njëkk mi ngi fi waxtaanoon ca waxtu gee di waxtaan bu am solo yàlla la suñu borom fay sa taxawaay di nuyu tamit kilifa yi fi teew yépp ci turu Mouhamed Sylla mi nga xamante ne nii moom moo woote bis bii tudde ko sant sëriñ Saliou Mbacke sëriñ Galas Kaltoom bu teewee ci sant sëriñ Saliou Mbacke day ah moom day kenn du ne lu tax maa ngi koy day léegi ma ne ko sa diggante ak sëriñ Saliou sëñ Xaadim Njaay mi wax na ko léegi ñëpp mën nañ koo seere sëriñ Xaadim wax ne ndab ya nga doon togg di ko indi maa ngi fàttaliku bëccëg ji nga ñëwee gi sëriñ Saaliw sol lu mel nii nga sol jataay ba dem ba nga summi garaam mbubu bi summi mbibum ñaareel mi xëpp ko sëriñ bi loolu maa ngi koy fàttaliku sa diggante ak sëriñ Saaliw ku ne xam na ko kon boog jataay bi boo ki toogee mel na ne jataay bi kulóoru na Mbàkke jëf mohamed mboolem njabootuk sëriñ Saaliw tey jii sant nañu la ndax képp ku ñu woo ci sant sëñ Saliou rek mënuñu laa fay sëñ Saliou nag àddina yëpp war nañ koo sant taalibe yëpp war koo sant waaye waa réew mi tamit war nañ koo sant waaye ndaw ñi nag ñoo war a jiitu ci sant sëriñ Saliou kon boog boo dee ndaw xëy ne dangay sant sëriñ Saliou ànd kook sa mbooloom ndaw yi nga xamante ne yéen a nekkoon ca daaray sëriñ Saliou def ngeen lu leen war jataay bi yàgg na sëriñ Maxtaar Jenn xam naa ne toogaay bi yàgg na yeneen kilifa yi tamit toogaay yàgg na waaye nag danañ may ne fukki minute wala fukki minute ak juróom rek ndax buñ ñëwee fii ba ñibbi tamit nag te génn wuñ jikkoy sëñ Saaliw waxtaan tuuti sëñ Saaliw loolu dina doy waar sëñ Assane def na ci lu am solo sëñ Cheikh Bass def ci am solo kon ñun tamit du ñàkk ñu def ci suñu ay seere yu ndaw rek li waral ñu jotaayu sant sëñ Saaliw bi ci ndigalal sëñ Abo ak sëñ Galas sëriñ Saaliw Mbacke day dafa doon koo xamante ne nii ndaw ñëpp amel nañ ko njukkal ndax jataay bii fi toog ñii fi toog di ay ndaw kenn ku nekk mën na laa nett nettali ay bisi bisi bisi bisi bis yum nekk ak sëriñ saaliw mën na laa nett nettali ay waxtu yu waxtu yu mu nekk ak sëriñ saaliw te kenn ku nekk xam na ne sëriñ saaliw amul woon jot waaye nag jëmam jii li muy ñàkk ñakk ñàkk jot jëleen na ko xagal ci ndaw ñi damay xool jataay bi rek tudd ci ay tur wax ci ay diggante sëriñ saaliw nga xam diggante sëriñ saaliw ak ndaw sëriñ am sax si la mee toog ndaw la waaye ndaw loo xamante ni nii bind na kaamil jox ko sëriñ saaliwu sëriñ saaliwu daaray janatuy daaray janatuy maxwa nga xamante ne nii ñeenti téeméeri donga ñoo fa nekk ak seeni jëwriñ mu jël ko def ko jëwriñu daara ga te booba amagul fanweeri at yamul ci loola mu xëy def ko imaam jumaay jànnatul mahwa yemul ci loolu mu xëy kafek boppam gi nga xamante ne nii moo koy naan bis bi set bu xëyee moo koy tàngal indi ko indil ko sëriñ bi sëriñ bi door cee jëfandikoo te muy ndaw sëñ xaarim njaay mii sëñ minikaar mii sëñ xaadim jaw ngu mii kenn ku nekk man ngaa nettali ci moom ay jataay jataay yi mu am ci sëriñ bi xaadim njaay deux heures deux heures du matin la ma daan fekk néeg ba ma sëñ Saliou daan dalal booba dama ko daan ganasi booba dë dëkkaguma ko sëñ Saliou daf maa waxan at mu get nag ma ganasi su ma ñëwee deux heures du matin Xaadim Ndiaye yaa ma daa woo si ne ma kaay ñëwal wuy si sëñ bi ba quatre heures du ba cinq heures ma doolu dellu sama néeg loolu kon jaxasoog jaxasoog goo jaxasoog sëriñ bi la dama daan toog ci sëriñ bi di waxtaan ak moom nga nekk tànk yi di ko bësal léeg-léeg mu ne ndànk loolu fàttewuma ko te booba ndaw nga booba amagoo ñaar fukki at wala fukki ak juróom sëñ Fallilou Ka kenn ku ne xam na sa diggante ak sëriñ Saliou yow tamit te booba ndaw la sëñ Minikaar kàccoor la defoon nekk daara ja léeg mu daw ñu koy wër mu dem ba ci bu ñu dawee ba ñu wër ko ba gis ko buy dem yóbbaale ñaar wala ñett daara ju minicar nekk buy daw fukki ni tay daw buñ koy wër ba sëñ bi ne ko donga yi dafa daw sëñ bi ne xanaa ko mbaa du minicar baa leen yóbbaale loolu moo indi turu minicar sëñ xaadim jaw ngumb anamu ngumb jógal taxaw jógal ndax histoire sëñ bi tamit faaw ñu koy nettali ñu xam li tax ngeen di san sëriñ bi ngumb mii dafa xiibonoon xiibon yaakaar naa mënumaa misaal fii ci jataay bi nu mu xeebe woon ku xeebe ne woon ni ngumbu ngumbu woo góor a jéey safaru sëñ saaliwu nga xamante ne nii moo koy dawalal di ko doxal yu bëri ne ko jëm jii dama ko teg sa loxo lépp loo mën a defal na nga ko bàyyi boo xëyee dee ko suppal ay yeel di ko tàngal di ko toppatoo di ko faj ba mu wér sama ndigal looy def rek jëmm ji laa la ko jox xoolal ngumbu léegi nii ah mën nañ ko boo rek a Gaye nga xam ne kon sëñ Saliou Mbacké ni mu joxe woon boppam jëmmam gi tedd joojee ni mu ko joxe woon boppam ndaw ñi wallahi alazim dafa am kenn suba teel am gone gu jóge ca daara ja yaakaar naa daaray njurul la ñëw fekk sëñ bi sëñ bi ubbi naanagul kafe dongo bi daal liggéenti na ba egsi sëñ bi nuyu ko ne ko rangoo ñuy toq sëñ bi ne ko lu mu doon mu ne ko Mbàkke man damaa jaaxle lool sëñ bi ne ko loola jaaxal mu ne ko man de sama baay dafa faatu ñu miraas ko lekk miraas ma bàyyi ma sëñ bi ne ko hum mu jaaraat foofu sëñ bi ne ma son yi bu ma ne ko mbàkke mu ne ma lépp loo doon def bàyyi ko te nga ànd ak gone gii nga dem loppatoo ndeyam ak baayam ba lijjantil ma lii mu wax nu mu demee ma génn gone gi ne ko foo dëkk mu ne may sama maam gi jigéen ma nga njaareem waaye nag sama baay ma nga dëkk bayaax ma ànd ak moom ñëw ci maamam gi jigéen maamam gi jigéen ne ko sëriñ bébé yónni lii la gone gi wax maam gi ma kon de da ngay dem bayaax nga liggéenti ji loolu su ma waxan tur wi ñëpp dinañ ko xam may nag loolu jël daanaka jurul wax ñu ànd dem bayaax ma gis baayam bu ndaw gone gi wax li mu waxan ma ne ko sëñ Saliou moo ma yónni bàyyi mi ne ma gone gi lii mu wax daa am lu ma ci bëgg a leeral am na kenn noo xam ne nii la demee waaye demewul nii tamit dëgg la baayam dafay bàyyi koo bàyyi ñaari kër kër gii mu dëkk nga xamante ne ni ay jigéen la yor man ma dañ koo miraas jox ko ñi nga xamante ne nii ñoom la bokkal ñu di jigéen ndegam moom góor la te da koy jox sëñ Saliou Mbacke baayam dafa am ca biir dëkk ba kër goo xamante ne ni ay boutique yu ñuy luye la ñu xam ne bu ñu ko dencee ba mu ba mu màgg kër ga ci lay ëpp njariñ ci moom moo tax ñu doxalee noonu ma ànd gone ga li ngeen li may bëgg a wax moo am solo ci yoon wi ñuy woo ma ne ma sëñ Saliou nee na dalay laaj ndax mbir ma gis nga mbokk yi wala de ma ne ko nee ko gis naa mbokk yi maa ngi ñëw bi ma ñëwee agsi nuyu sëñ bi sëñ bi ne ma nu mu demee ma nettali ko sëñ bi dafa jógaat ne alhamdulilahi rabil alamin ne ma sama café ga wañ suba sama añ ba sama reer ba ma ba ma déggee loolu ba léegi dara dugg dara mënta dugg sama biir bi xoolal kooku yërmande sëriñ bi xoolal googu jox àq doomu aadama sëriñ Saliou Mbacke kon ñun bu ñu toogee di sëriñ Saliou Mbacke di ko sant war nañ koo sant fii ba suba ba ginnaaw suba duñ jotaay bi du metti ñun duñ ci tàyyeel kon boog moom kenn mënu koo fay kenn ku nekk ci ñun def na ci yow loo xamante ne nii wallaay ndeysaan sëñ Galas loolu yàgg loolu yàgg nga ci wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kenn ku nekk ñun def na ci loo xamante ne nii danga koy misaal rek dañ koy def yëfi sëñ Mansour si sëñ Mahamadul Mansour si daraan wax naan sama baay nee na sama maam nee na ndax baayam ak maamam daa am lu ñu wax lu ñu wax lu mën a nettali kenn ku nekk ñun rek mën ngaa jël benn misaal ci sëñ Saliou ci yow nga xamante ne ni loolu du jëfi doomu aadama li may wax nii sëñ am Amsadou Sylla mais mën na koo seere sëñ minikaar mi mën na koo seere yow mi mën nga koo seere ci wayeefuk sëñ Saliou ak baaxuk sëriñ Saliou sëñ Matar bul dem de waaw bul dem de toogal woyefuk sëñ Saliou ak baaxuk sëriñ Saliou sëñ Saliou dafa ñëw janatul maxwa am fa lu mat fukki fan ak ñaar xëy di ñibbi Touba góor a jey taal oto bi sëñ bi dugg ci oto bi daal di toog bi mu toogee ba oto bi tàkk mu geestu ne ana son yi bu Cissé ndegam bu laa dugg ci oto bi damay dugg ak moom ci ginnaaw mu geestu ne ana son yi bu Cissé ñu ne ko ah son bi da gisuñu ko mu ne dem leen seet ko ñu dem dema seet fekk man damay maa ngi maa maa ngay sangu man ñaare sama sangu day yàgg ndax damay ragal ndox mi ci jaanatul ma waa ndax seddaay bi damay dama koy tiim lu yàgg di ko xool dama ko ñemee laal ñu ñëw ne ko son yi bu de nekku fi waaye day sangu sëñ bi ne bu ko kenn fëgg te bu kenn woo oto bi ralentir mu toog dama xaar ba ma sagal lu ma 30 minutes oto bi ralentir mu ne tekk dama xaar ma sangu ba noppi solo ñëw ak daw ko nañ tamit dama sëñ bi toog na ci oto bi yàgg di la xaar ma ñëw dugg ci oto bi fekk genn kilifa gu baax goo xam ne xaritu sëriñ bi la mi ngi ci biir oto bi ma dugg rek mu tàmbali maa yedd naa ma ànd ak kilifa nangam nangam sëñ bi ne ko waxtu sangam laay dem da yomb na lool te su bokk ko waxan ma ñëw ci oto bi fekk ci sëñ bi xoolal ñun ñii waaye léegi xoolal ñun ñii ku ci ànd nag sa sa sa sa sa surga wala nga ànd cee sab donga wala nga ànd cee koo yilif xoolal ak sëñ bi ni muy ni muy ni muy ni muy jëflanteeg ku mu yilif moom kon sëriñ bi sëñ Mouhamed Sylla ak yéen ñi nga xamante ne yéen a nekkoon na sëñ Saliou war ngeen a sant yàlla bu baax baax a baax a baax ndax sëriñ Saliou Mbacke képp ku nekk ak moom mu naan la defal ngay def bàyyil ngay bàyyi képp ku nekk ak moom de teg jëmmam bi tedd ja yéen ñi nga xam ne kenn ku nekk fanaan nag sëñ Saliou bés ko kenn ku nekk ci yéen fanaan nag sëñ Saliou guddi fanaane koo bés ba bés set ci daara gi laa nekk mais keroog man la woone ma kaay kaay traduiral man maa daan def traduction diggante sëñ bi ak ambassadeur bi seen waxtaan wi waaw ma traduire ñu waxtaan lu ma mat waxtu waxtaan ci xam-xam keroog sëñ Saliou wax na tubaab bi loo xamante ne ñemewu ma koo nettali ci jataay tubaab bee ko laaj ne ko sëñ tawa sëñ sëñ sëñ Touba seen jur nga xamante ne nekk nag France ak natt yi am yéen ban lan ngeen jàngat ci France ak lan ngeen jàpp ci France tontu la ko sëñ bi tontu loolu ma sañu ma ko nettali bu mu waxtaan ak sëñ bi ba bay dem sëñ bi xelli kafe ne ndax bëgg nga café mu ne waa sëñ bi xelli kafe jox ko ci kaasu boppam bi bi muy naanee kafe kenn ku nekk na tàppe internet def turu rencontre Christopher Faye sëñ Saliou Mbacke sëñ moom moo ko waxal boppam Christopher Faye nee na dafa ñibbi si Dakar reer jot ki si ñëw teg bi mu ko daan tegal tekki sàngara mu ne ko daan randalal sàngara si te indil ma Coca Christophe Faye nee na keroog ba mu naanee kafe ak sëñ Sadio la bàyyi naan sàngara ba nëgëri sans Christophe Faye ambassadeur ambassadeur de France au Sénégal moo ko wax publiquement ku tap ku tàppe internet gis ko yéen ñi dëkkee woon naan kafe ak sëñ Sadio guddeeg bëccëg na kooku benn yoon la naan ci kafe ga kon yéen war ngeen sant bu baax a baax a baax dafa am loo xamante ne nii soxna moom i Kébé mi ñu fi doon léegi danaa ko ci laal dana ko seere la xam nga ñun ay ndaw lañu bi ñu nekk sëñ Saliou ah am na yu bari yoo xamante ne nii yëfi kàccoor la yoo xamante ne ñun ñoo ko fa indi ah sëñ màgg baax rek am nag de ku ne jaar na ci ndaw fekk sëñ Saliou yow bi mu may téye man dama naan def damay tukki 10 juillet ba 10 octobre daaw ma ko nekk senegal dama daan dem France dem Espagne dem Angleterre dem fu nekk dama daan déglu ji dëkk bu ñuy wax Las Palmas dama fa daa déglu ji wayi naar ca naari naari naari gànnaar yi Mauritanie yi dañu am ay wayi naar yu ñu way way yu neex Las Palmas ma fay dem di ko déglu ji sëñ bi téye ma ñaari at fekk naaree samay xarit lañu ma ne leen na ngeen ñëw Touba yaakaar naa yow mu gis nga leen na ngeen ñëw tuubaa ñu ñu ñëw tuubaa ñu fanaanee tëggi bool ba ba set sama biir kër di déglu way naar gars yi dem mboolem ak sëñ bi ne ko son yi bu dafay indi ay naar yoo xam ne dañoo fanaanee fecc ba bët set ma xëy suba teel sëñ bi teg café gi muy naan mu ne ma da ngaa amee gan ma ne ko waaw mu ne ma fu ñu jógee ma ne ko gànnaar mu ne ma gan gàtt lañ bokk ma ne ko sëñ bi xanaa ñu ngi koy ceddo yu bon lañu xanaa man koy mbakki sa baax yaag suñu mon gi rek waaye ñooñu koy maa ko dëgg gi rek waaye ñoom de mbàkke bëggoon nañu laa gis ma la sëñ Sadio ne kon waxtu takkusaan tey mën nga leen a indi ngi ñëw mu ñëw mu ne ñu toog nuyu ko pare mu laaj leen café la ñu bëgg a naan wala attaay la ñu bëgg a naan sëñ bi cëkk loxoom bu tedd ba mu tàngal attaay xel leen ñu naan naari jigéen yooyee bañ naanee ci attaaya ja ñëw sama kër amaat fa ñaari fan ñibbi yi gànnaar ca déwén sa man ma ne nag ñi ne woon naa leen danaa leen woowaat ñëw ñu Tuubaa waaye loolu moom am naa gàcce kersa di leen woowaat ngir ñëw fii loolu mu xalaatuma ko nepp noppam bi di ko déggaat au lieu que mu yedd ma waaye mu teral leen ngir man loolu sama téeméeri xel xalaatu ko ma ma kenn ci ñoom woo ma téléphone ma koy lay ngir bëgg mu ñëw bañu gànnaar mu ne ma sëñ bi mu ne ko ah, mu ne ma man xam nga lu xew mu ne ko ah mu ne ma keroog bañ naa ne attaay sëñ Saliou ja mu a ah, ma mu ne ba ñibbi Mauritanie mu ne keroog la ñu bàyyi way way naar léegi jàng alxuraan xasida rek la ñuy

ok Mbacké Mbacké jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf Serigne Saliou Mbacké kon koo nga xam na yàgg naa xeeti lépp jàmm kooku jonjong moom ba xëy na dama koy tàntal di ko sant def nga loola war Mouhamed jëf waaye nag li ngeen fi def tey muy jàng fi alxuraan jàng fi xasida mooy li sëriñ bi gënoon a bëgg te loolu ngeen jiital ci cant yi alxuraan ji doy na xasida yi doy na bend yi doy na rawatina nag mu toll ci jamono joo xamante ne nii bu ci masaa toll sëriñ bi da cee amoon te lool ci réew mi di ci def ay ñaan di gis sàkk sarax di ci sonn lu ne mu def ci daj kon mboog réew mi ñu ngi jëm ci ay yëngutu xel yëpp tiit ñëpp jaaxle waaye nañ xam ne fii réewum Sëriñ Tuuba la jàmm rek rekk rekk rekk moo fi am Sëriñ Saliou Mbacke dafa daan sakk ay sarax ngir réew mi di jàngalu ay kaamil ngir réew mi di ñaan ñaan yu rëy ñaari biir ak ñaari biti ngir réew mi kon ba bu réew mi demee ba egsi nii ak njabootam di ndaw dagaloo jàngal xoraan ne li ñu jublu mooy ñi ngi ñaan jàmm ci réew mi fekk tamit sëñ Mouhamadul Mountakha mi xam ne mooy sëñ Touba woote ko altine yéen ngeen def ko gaaw kon réew mi seen xel war naa dal kon boog sëñ aboo Mbacke ñun boo toogee sax waruñoo wax waaye lañuy wax rek mooy dañuy sant sa maam sant sa maam nag ñëpp la war ndax koo xamante nii. ci ay at mat na la maam xaarim Njaay yow ni nga doon def sëñ bi man mi ba ma ko defee ma duma la minikaar naka noonu xaarim njaw ngumbu yow gis nga sëñ bi yow moo la def doomu aadama kon boog bu ngeen nekkee ndakaaru da ngeen a war a góor góorlu te yéen a ngi ci doon sagal sëriñ bi ndax sëriñ bi kat ba ngeen doonee ay ndaw sëfal leen ci boppam lii rek la bëggoon ndax xam ne ne ay ndaw ñooy mujj réew mi ëllëg waaye nag alhamdulilahi rabil alamina ba it ni ngeen fi nekkee nekkeen wu rafet la ndax noppal ngeen tamit seeni kilifa ci dëkk bi ndax kenn woowagu ñu ngi ñëw ñu ne kay atte diw wala kay diggante diw waaye dangeen ngeen ñëw noppal ndax man fi mu nekk nii fi ma toog soxla gëj damaa jóg doxi ko nit ku ma wax soxla dama naan dama la wala minicar minicar ñëw ma ne ko minicar dama lijjanti ko mu dem lijjanti ko ba lépp noppi mu ñëw ne ma loolu noppi na léeg nit ñëw ne ma man damaa bëgg jiwu ma ne ma ne ko téléphone minicar minicar na ko diw na am jiwu mu bàyyi li muy def lépp dem toppatoo ko léeg-léeg nit jox ma leetar ne ma demal liggéey ma ne ko Mouhamed foo nekk mu ne kaay ma ne ko kaayoo ñëw demal jox yóbbul ma leetar mu dem toppatoo ko ba lépp xam nga kon yéen li sëñ bi doon jëmbat ci yéen loolu mi ngi feeñ te sëñ bi nag noppeegul de sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir ku daa waxtaan ak sëñ Saliou Mbacke la jaxasoo moom lool ci mujj gi sëñ bi daan waxtaan ak moom lu bëree bëree bëree bëri ba deux heures du matin ba trois heures matin waaye sëñ bi sebena mu mujj mbiri taaliba yi rek la doon waxtaane ak mbiri waa réew mi ak taalibay sëñ Tuubaa yi nekk bitim réew yan coono lañ fa am ak seen i mbir fu mu toll di leen bàyyi xel di leen ñaanal te booba toll na suñu borom foo xamante ne nii la sëñ Tuubaa toll woon fa njaareem dafa am mag mu baax mu daa jëfal sëñ Tuubaa di ko jëfal di ko jëfal di ko jëfal ba ay xam nga ak jaxase dafa yàgg am ñu ñëw ko sëñ Tuubaa defal lépp ci ngistal rek la koy def sëñ bi ne leen kon de raw na leen ndax man fi nekk toll borom foo xam ne ku ngistal jëm ci man sax suñu borom gis la sëñ Saliou ma nag jamono jooju foofu la tollan waaye boobu moom liggéey dafa doon kenn lu taalibe yi mm-hmm. ak réew mi ak ak taalibe sëñ Touba yi ak réew mi kon boo ko kenn mënu koo fay kon sëñ Maxtaar Mouhamed Sylla dafay yóbbante ak cant ci sëriñam yii ak kilifaam yii ak mbokki dongaam yii ak mbokki taalibeem yi yóbbante tamit ak cant ci kilifa yi nga xamante ne nii dañoo nekk kilifa yi àdduna mu seq ak ñoom àdduna di jaxasoo ñoom ñu ñëw jàppale ko ci bis bi ba ñëpp xam ko mboolem dëkkandoo yi nga xamante ne ni ay wëlëralam su ma gi tuddee sëñ Pambay mii nga xamante ne nii daanaka jataay bi ci barabam lañ ko defee tudd sëriñ Daawuda mbaw mee toog tudd euh, yeneen yeneen kàngam yi nga xamante ne nii yëpp dañoo bëgg sëñ Saliou Mbacké jàpp waa kër sëñ Saliou ni seen bopp sëñ maxtaan nag yow kon ñi ngi lay yóbbante tamit ak cant Mohamed nee na nga santal ko bu baax a baax borom réew mi président Macky Sall nee na tamit nga santal ko Alaaji Omar Yum nee na tamit nga santal ko tamit ministre Makhtar Ba mais nee na tamit nga santal ko mboolem kilifa yi nga xamante ne nii dañoo nekk ci wetu président di ko jàppale nee na cant koo gépp ki sa loxo la koy teg ndax nee na gis nga ne bés bi ànd nga ko moom toog ci jataay bi ci suba ba nëga ni nee na kon loolu xam na ne bokk gi ngeen bokk Serigne Saliou ak safoo gi nga safoo sëriñ Saliou loolu moo tax te loolu nag yow boo ko defee dala war la ndax kuñ na Cheikh Issa Dienne sa maam loo def ci kër Sëñ Touba rek danga nga ko war a xeeb waaye nag taalibe yëpp yow tamit ñu ngi lay sant di la ñaanal boo demee nga ne président Mohamed sant na ko waaye président minicar mi miinewu ko ci miinewu ko ci pale bi de Xaarim Ndiaye mii yow mi miinewoo président ci pale bi de kër Sëñ Saliou Mbacké nga leen mii nga nga nga nga ko nga ko nga ko miine kon boo président ñu ngi koy sant bu baax te li ko gërëm man moom damay wax minicar bi mu set na koy jàppal président man maa la ko digal ndax yow dama laa war a digal day am ñoo xamante ne nii man dama leen a sañ a digal moo koy wax sëñ Fallou Ka ne ko jàppal président sëñ Xaadim Ndiaye sëñ Xaadim Diaw am na yu bi xewoon mën a la yow na jàpp président mboolem doo nga yëpp dama leen ko wax xamal tax sëñ Matar xam nga tax ma di leen koy wax xam nga maa fekkee ju nekk dafa bokkut ak maa dégg président Macky Sall dafa am ay jafe-jafe yu rëy sëñ Saliou Mbacké dégg ko ne ma ndax mën naa laa yónni ci Macky Sall ma ne ko waaw mu ne ma mën nga caa dem ci guddi gi ma ne ko waaw fàllu ko de yow laa àndaloon fi ñu fekk ko këram nga ca booru biir ci booru ambassade Dakar biir Italie sëñ Saliou ne ma boo demee nga jox ko lii te wax ko lii foofu rek laa yem. la ilaha illallah. boo demee boo demee nga jox ko lii te wax ko lii. loolu démb la sëriñ Saliou. ma dem jox ko lii wax ko lii. yàlla tàkk ñaari kàddu ñuy dem ba 2007 wax ju nekk day am seere sëriñ Saliou Mbacké daa def waxtaanu tabaski bi mu naan def ba noppi di bisub àjjuma woo ma ma ñëw fekk sëñ Seexam sëñ Saaliw di ko siyaare si mu ne ma son yi bu ma ne ko mbàkki mu ne ma dama bëgg nga jóg jotal ma cant goo xamante ne nii sant naa ko sëriñ seex mii sant naa ko sant goo xamante ne nii dama kee lottu tey ba bëgg jot li la ko mbooloo mi seede ko ndax lu mu mas a nekk sama bëgg la boobu yaa ngi taxaw ma wax ko sëriñ Cheikh bég lool ñi ma doon bég sëriñ bi jóg dugg ci biir sëñ Matar Jaxate ñoom rey xar ya dem seen kër Moussa Niang dem këram ñu rey xar ma sëñ Saaliwu Jaxate moom sëñ Saaliwu dem li ñuy wax boroom kër bu reyee xar mi aaday wolof li naan res bi dañ koy lakk indi ko sëñ Saaliwu Jaxate mu wareem làkk ko indi ko sëñ bi teg ko nii tiim ko mu toog ci lal bi ci lal bi ma toog ci tapis bi tiim ko mu tiim lakk bi léeg mu jël ci kuddi gi jox ma ci ci ci les bi ñuy waxtaan ba ci yàgg sëriñ bi xool ni mu fanke njaboot bisub korité bisub tabaski bisub gàmm bisub màggal million tur la tur la sikki dana la jox kaasu kafe jox la mbéjong tuur la sikki bisu màggalu Touba dana xëy jox la kaasu kafe nga naan mu tuur la sikki jox la mbéjong bisu mu tuur la kafe jox la mbéjong bisu kori noonu bisu tabaski noonu waaw sëñ Saliou Diakhaté bi mu defee loolu ba noppi ma ne ko sëñ bi man damaa bëgg a dem njaareem su ma fa jógee damaa bëgg a dem ndakaaru ajjuma la dëggal baax li ma tontu mu ne ma lu mën a xew boo demee ndakaaru àjjuma ji lu man a xew na la fi fekk ndeke boobu moom gi lay waaj ngir dem sëriñ Saliou boo dëkkee moom dangay mën a war ne sëñ bi léeg-léeg nga ne dana am ñaar téeméeri at ñëw fekk ko mu mel ni koo xamante nii wóor na ne ñaar téeméeri at moom dina ko am ndax sawarte ak form ak ak mën a waxtaan ak nekk yi léeg nga ñëw guddi goo xamante ne nii da ngay jàpp ne balaa bët set moom ñun la sëñ bi dem na day soppeeku léeg mu xees léeg-léeg mu ñuul léeg mu màggat léeg-léeg mu bees jamono gi ne aar jëm nekk moo tax boo dëkkee moom lu sëñ bi wéradi wéradi doo sa xel du dem ci yooyu nan day dem ak deer mukk doo ko xalaat yaa ngi dégg bu baax li ma lay nett àjjuma ji na la fi fekk ma dem njaareem gaaw ci guddi sëñ mataa wax ci ne day am day am seere damay wax loo xamante ne nii day am mbir moo xam ne da nga gis nit yor ko nga foog daal da koo for fekk foru ko gaaw ci guddi Macky Sall woo ma téléphone ne ma dama la doon nuyu di la baalu àq ci tabaski gi ak na damaa naman Serigne Saliou ba koo siyaare si ma ne ko kon ne ni ñuy def mooy da ngay bàyyi ma woon la sëñ Tayba Seck ma woo Tayba gaaw ci guddi ne ko Tayba waxal ma sëriñ bi ne ko Macky Sall nee na dafa bëgg a nuyu si ma woo sëñ Tayba ne ko neel sëñ bi ñëw naa sëñ Tayba daal di ne ma ubbil ma ma dugg ma ma yóbbu ko jox ko ndékki biñ ñëwee ma ñëw ki sëriñ bi ne ko bi ne Mbacke da ngaa sonn lool moo tax am na gan koo xamante ne ñëwoon na fi ne newoon nga ñëw na waaye jox nañ ko ndékki jox naa ko kafe maa ngi dem ñaanal ko yewi ko ndax xam naa ne moom rek am dugg na rek dina dina dina bëgg sëñ bi ndeysaan ci baax ga daal di fekk mu sóonu mu daal di jóg mu ne ëpp naa def jox ma kaala gi jox ko mu teg kaala dama dama woo ko mu ñëw ñëw waaye baat bi ci am solo mooy loolu ngay bëgg loolu laa bëgg ngeen dégg ko bi ñëwee dafa toog mu ne ko la ma yónni woon son son yi bu Cissé ci yow ñaari baat ya ma la waxoon booba léegi maa ngi lay déglu yaa ngi loola waxtaan ak moom ñaanal ko ne gungeel leen ma ko ba ca oto ba sëñ Moustapha son yi bu gungeel leen ma ko ba ca oto ba kon moom li ko dimbali mooy màggalu Tuubaa dafa jot ndox manqué kenn amul ndox sëñ yi ñëpp ñëw di ko jàmbat sëñ bi yërmande ji mu bëree ndox mi manqué sëñ bi loolu def ko xaal sëñ bi génne te déwén sa sëñ bi génne 3 milliards woo ko ñu wax Mamadou Guèye SVTP ne ko damaa bëgg ñu yokk ay forage ci dëkk bi Mamadou duggee yaakaar naa moo ko mag Macky xaw mu mag Macky da koo dégg ki ñëw ne ko sëñ bi xaalis ba nga bëgg a génne bàyyil man ma def ko bu ko def bi mu ñëwee def loolu ci déwén sa ndox mi bari lool saas bu ubbi rek mu xelli gars yi ñëw ki sëñ bi di ko sant naa ko sëñ bi sa magal gi ren ni mu neexee ndox ndox mu bari mi wallahi alazim yéen li may wax nii xam ngeen ko yéen yaa ñaata yéen ngeen wat ay saaku ay oto ay fani fan di wër sancaan yi di ko séddale du jeex léeg-léeg ngeen fëgg kër rek wàcce saakoob ceeb wàcce saakoob dugub wàcce saakoob suukar daal di jàll ten te boo kenn dul sama tur am benn bis mu am dund bu bari bu mu bëgg a séddale di abo magasin bu mag ba nekk njaareem ca booru Sambe woo gouverneur su ma jumul alkaali Traoré la ne ko damaa soxla magasin bu mag ba ci njaareem bëgg koo àbbu gouverneur loolu na ko day ministre sàngam moo ko yore xanaa ñu waxal ak ko sëñ bi ne ko su ma sañan day nga wax bu dee sama soxla la soo xam ne sa man la ñu bañ ko wax waaye ñu wax ko Macky Sall moom mu wax ko ko kon nag loolu moom li mu am dafa liggéeyal dafa liggéeyal Serigne Saliou kon boog ñun ñëpp nañ maase ñaan réew mi jàmm am bi ndax Serigne Saliou kat am na lu mu joxañ de xéewal yi ñëw nii xéewal yi ñëw nii sëriñ bi lu waxoon sëriñ bi lu mu waxoon mooy nee des na tuuti ci kanam kuy dimbali nit na ko dimbali léegi ndax des na tuuti ci kanam kenn du soxla ndimbalal kenn sëñ bi nee na ñaar la suñu borom mënta dimbali mooy ki ko wóoluwul ak yàkkamti rek sëñ bi nee na ki ko wóoluwul suñu borom ñaar la mënta dimbali mooy ki ko wóoluwul ak yàkkamti sëriñ Saliou Mbacke am na Ndakaaru juróom su ma jumul ñeenti weer wala juróom benn weer ca 1946 ci jamonoy guerre ba nee na booba mi ngi yor daara sanc daara ke boori Thiès réew mi dara amatu fi guerre bi déclaré bato yi ñëwatul marchandise ñëwatul mu xool donga yi yërëm leen mënatul a nekk ak ñoom mu ne naa leen fi bàyyi dem ndakaaru ndax ma am lu ma leen jox am ndakaaru ñeenti weer wala juróom benn weer dama fàtte la ma nettali bu dul ñeenti de juróom benn nee na fukki saako yu sumul ak ñaar la fi amee fukki saako yu sumul ak ñaar la fi amee nee mu ñëw jox ko donga yee saako yi mu xar ko muy doon ay mbubb ñuy dongay sol ay mbubb mbubbi saako benn bis sëñ Saaliwu toog na yéen ñëpp fekkee ngeen ko ñu ñawal ko fukki junni yi mbubb ak ñaar ci benn bés fukki junni yi mbubb ak ñaar yëpp di mbase yuñ daamine ngoog kon boog leer na kon noonu leer fukki junni ak ñaar ci benn bis fukki junni yi mbubb ak ñaar sëñ bi ti mbubb yi di ko xool di ko xool ba caag mu fàttali ko fukki saako yi sumul ak ñaar ya kon sëñ bi bu ne bu neen waaye sëñ bi kum ne bu mu yàkkamti nga war koo gëm ndax moom daa muñ yàkkamtiwut sëñ Saliou Mbacké nee na ma sama waa kër am nañ commerçant bu bu nekk ca marché ba boo xam ne bu ma saañ seen sama waa kër muy ñëw mu ne mbaa mbaa du ngeen leb si ay waaye seen sëriñ mi nay jënd waaye di leb rek bis mu ñëw bis mu ñëw di Serigne Saliou Mbacke waajal. man mhm. la mhm. ko nekk lii. man maa ñëw indi fukki jërëm micro bi sax man maa indi fukki mbokku junni ak ñaar. Mhm. di waxtaan ak micro bi Cheikh Béthio ba mu moo ko fekkee. ak sëñ Fallou Sow yi. ma toog ba si yàgg mu ne ma tey dama lay nekk lu yàgg loolu ta xorom. waaye ak cat laa si Cheikh Béthio moo leen laaj ana dawsil man mhm. da keneen ku ñuy wax Moustapha jiite bu ñu ñëwee toog sëriñ mhm. bi dama bi ñu sëñ Mor Moustapha bàyyee ko an moomee dund mhm. dafa manqué woon lool aw ma lu ñaar fukki saako suñu sa an ma bi ma ñëwee ma jëfandikoo boobu maa dong yi ba mu jeex ma xotti mbubb yi teg ko ñëw mu nekk fukki mbubb ak ñaar ma dem sama daara gis ko xool ñi gën a ràññee ko ma jox leen ko keroog ñaanal ma ñaan yoo xam defa naa ab donga daaro xam ko xool na bëri yoo xamante ne defa naa ne ab doomu daara xamul yërmaande jooju mhm. mu ne nag cat bi li ma doon ñaan yàlla mhm. bi ma koy am si yéen la jaare mhm. muy mooy seetlu ñëpp amandoo macha allah ma ne ko mbàkke na waaye bul dem bàyyi ñu fi mukk macha allah yooyu yëpp ñu doon yaakaar macha allah ñi ngi ñaan na nga ñaanal ñu ñu am doole kàttan am kenn bu ne mën a am fukki mboo ñaar macha allah mu ne ma loolu yéene la ab jullit bu jëfee bu fa jëfam yam yàlla da koy fay yéene yàlla si ma defal loolu defal naa yàq boo àndal liggéey yéen liggéey sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa fay la ba ngeen téye pay gi ngeen door a jëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon leer kon leer leer na kon xam nga ne sëñ Saliou Mbacké yàkkamtiwul woon kon yéen ñii tamit ñun ñii war ñoo yàkkamti seen nii ngeen mel toog jàpp seen njaambur di dimbalente di diisoo toog di xaar sëriñ bi nopp leen ci loolu jàpp leen ci loolu te sëriñ bi xéewale mi ni mu ko waxee kuy dimbali nit def ko léegi sëñ Gora Seye moom sëñ Saliou jërëjëf ah, mbubb yooyu nag sëñ bi daf ci am lu mu teg loo xamante ne nii sëñ bi dafa am yoo xamante ne nii sëñ bi rek ko ñeme keroog bi mbubb yi teewee sëñ bi dafa aalo daana sëriñ Touba day bu mu nekkee ci njaareem danaan woo mag ba mu ñëw mu génn am mbubb jox la ne la xam nga lu ma jublu ci mbub mi ngeen ne ko déedéet mu ne la ak xoral la hmm. jox sëñ mu ne ak ak ak ak ak ak ak xoral la daan ne ndax xam ngeen lan mooy ak xoral ñu ne wante mbooloo ma ne ko déedéet Mbàkke ñu de xamuñu ak xoral mu ne ak xoral mooy baykat yi mbubb yi ñuy tekki seen àll bi solal ko ay mbaxana weñ mooy ba kii yooyu nu mu tuddati bant yooyu baykat yi di teg seen àll yi mu mel ni nit muy dàq picc yi mu ne loolu mooy ak xoral daana sëñ bi daan wax ne sama mbubb yi xam nga lu mu doon ci yéen ñu ne ko ak xoral ñu ne ko mun leen mun leen mun a gis sama picc yi noonu ñuy dawee mbubb yooyu bari baykat yi teg malaakay safaan yi ci biir bàmmeel noonu la ñuy dawee sama mbubb yi mun ko rek nakir ak ñoo ngi di xuppe sëñ bi nee na noonu la ñuy dawee mbubbam yi keroog sëñ Saliou Mbacke dana man day awma barke boobu nag waaye nag ki dara jaam mbubb yi tey def naa ko muy mbubb yooyu ku ci am ci mbubb yi texe rek yéen ñi ñëpp seen i ngeen denc yéen ñëpp seen i mbubb mi ngeen denc waaye waaye yéen nag kon nag dëgg dëgg dëgg ñun nag ñoo war a sant sëñ Saliou nag bu baax a baax a baax lii dëgg da ngeen ko war a gën a booloo sëñ Fallou ko da ngay sant sëñ Saliou Mouhamed si la di sant sëñ Saliou da ngeen di waxtaan seen yéen ñëpp nag ngeen jàpp ngeen di jàpp genn cantuk sëñ Saliou goo xamante ngeen koy def cant goo xamante ni cantuk donga yëpp lay doon loolu lu am solo lay doon te yéen ngeen rafet njot te dalal seen xel te xam ne sëriñ bi xéewale mi mi ngi ñëw fàttewu leen tey fàttewu leen démb lim ñu wax ba muy dem leena nañ sëriñ bi lim ñu wax ba muy dem leena nañ nee na du leen fàtte de du ma dem bàyyi leen de lu mën a xew dama leen di nekk su ma leen rawee taxaw xaar leen su ngeen lànkee ba ngeen ñëw ma wàññee ko jëli leen waaye nag lu mën a xew duma ma tàggoog kon boog loolu war naa dalal suñu xel war a dalal xelu taalibe yépp kon boog sëñ Maxtaar réew mii képp ku fi séentu leneen lu jàmm jàmm rek moo fi am sëñ Touba euh, dafa am benn waay bu ñu wax Touré yaakaar naa mooy président football club bu yéegoo nee na bi mu xamee ne sëñ Touba mooy jàmbaar dëgg mooy moom nee na tubaab yi Saint-Étienne yi tubaab yi Saint-Étienne équipe bu football bu tudd Saint-Étienne ca France tubaab yi Saint-Étienne la jotee lool waaw nee na waaye bi jotee ak tubaab bi Saint-Étienne nee na at yooyu maanaam dund coono boo xamante ne nii nee na a xam sëñ tubaab mi jotee moom moom moom moom ca yooyu jabar lu mu dund waaw loolu dafa am solo lu mu wax wax ju am solo la wax nee na moom Saint-Étienne équipe bu Saint-Étienne ca France la joteel waaye nee na dund na coono yoo xamante ne nii sëñ tubaab mi jotee état France moom moom yan coono la war a dund sëñ Saliou Mbacke daraan wax ne li ngeen sax dégg ngeen ko man de bu ngeen ma jiitalee du ma def mukk lu yàq diine wala lu yàq àddina du ma fekk tamit lu yàlla yaatal mukk ma di ko xatal waaye sëñ Saliou Mbacke da leen daa sonn ci jom nag jom jom dafa bëgg ngeen am jom am fula sëñ Saliou Mbacke danaa xëy rey fukki xar ñaar togg ko ay ceeb yu ñor sa ñaboo li may wax xam na ko ñu xam ne donga yee ko moom mu noppi deux heures ci bëccëg mu téye ko ba wenn deux heures ci guddi mu doo leen jox ngir lan ba ngeen ba ngeen yàkkamti ndax dana leen bu leen yàkkamti waaye loolu da leen koy dundal bu leen yàkkamti waxul yam ci waaye da koy def ci yéen bu leen yàkkamti sëñ Saliou sëñ Saliou dara wax ne jomi Serigne Touba jomam sëñ Saliou nee dafa am mag mag moo xam ne ci yoonu murid la bokk ci jamonoy tubaab bi xam nga tubaab bi boobu ñoom dañoo ñàkki teggin mu am njaaxum gum def ñu jàpp ko kawlax tëj ko fa ñu tëj ko kawlax ca kaso ba mu def ay pexe ba rëcc ñëw njaareem nuyu sëriñ bi sëriñ bi ne xew-xew ba ma doon dégg mu ne ko mbàkke man damaa rëcc defe na sëñ bi da wax sëñ bi ne ko yaa ñàkk jom ne ko yow de nuru yéen nuruwu leen ma de man de fa ma nekkoon kenn ku may wetti nekkuma foo nag moom waaye kenn mësuma faa yem ne ko toppal sama loxo bi dellu fa nga fa nga fa nga jóge woon ca kaso ba mu delluwaat lax ñëw bi mu ñëwee ba toog directeur prison bi ñëw ñu ne waaje rëcc ñëw na ñu laaj ko lu mu ñëw mu nett li xese bi mu xese nett li li diggam ak sëriñ bi tubaab ba di ko xool ba càgg fekkee wul la sëriñ bay wax mu ne ko yéen yéen a ñàkk jom waaye seen sëriñ boobu ñàkkul jom de tontu ne ko waaye demal baal nañ la ngir moom ndax ku bëgg di diine moom faaw koy teel a yeewu yeewu julli fajar moom yombul sedd bi sax ci ndigal nag mooy suñu kilifa yu baax yii ñu am ñu fonk leen te teey leen te di leen ñaanal kuñ na am nga kilifa gu mel ni sëñ Muntaxa rek sam xel war a dal koo xamante ne nii toppe rek ba liy yëpp ñëw tey toppe kuñ na am nga kilifa gu mel ne sëñ Seexum sëñ sa xel war a dal koo ne nii boolewul daraa ki wax jàng alxuraan bay jaamu yàlla tëju sam xel war a dal kon ba ñun ñëpp suñuy xel war naa dal réew mi tamit nañ maasandoo ñun ñëpp xam ne suñum réew la la xéewal yi ci yonente bi sallallahu alayhi wa jox waa Arabie Saoudia sëñ Tuubaa dinañu jox xéewal yu toll noonu wala ñu ko ëpp sëñ Saliou moo ñu ko digg te lu mu ñu mës a gis nañ ko moo ne lépp lu waay yor kuy ku yor dara ba ko dimbalee nit dimbali ko léegi des ci kanam tuuti da ngay wër koo dimbali du doo ko gis kon mbokk Mbakke sëñ Abo jërëjëf xanaa nag sëñ bi yow yaay ñaan waaye daal moom lay sant nañ bu baax daal waxtaan wi moom daal sëñ bi sa teewaay macha allah sëñ Maxtaar tamit yow tamit jërëjëf sëñ sëñ sëñ Maxtaar bu amee kàddu yi sant. mbokk yoo xam ne dañoo ñëw mooy sëriñ Mahmadane Mbacke mu sëriñ Cheikh Astou Faye ak sëriñ Kili mu sëriñ Cheikh Astou Faye ak sëriñ Abdou Mbacke mu sëriñ Modou Maxtaar ak koo xam ne jàmbaari Serigne Saliou muy Serigne Gora Seye ah mu Serigne Fallou Seye ma jàmbar ma soog jàmbaari Serigne Saliou kii day kenn ci Serigne Saliou ma xam ko xam baayam xam way yëru waaye mayam ne ma këru ma waaye baayam Serigne Fallou ñu ne gërëm la kon su ne woo nañ Fallou suñu loxo amin amin amiin suñu mbay yi lan de. amiin amiin amiin. Sëñ Bass Mbacké maa ngi teew na. amiin amiin. amiin ah sëñ Mbaye suñu taw. amiin. ku waay toll rek. président Macky Sall nga ñaawoo fi borom bay ko